ma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 aousubillahi min alsheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamina wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin seydina muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ixwat al imaani wal islaami wal ihsaani wal iraadati asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk M Media Group Nourou Darayni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa di julli ci sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa di leen siyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen ba ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala nungul suñu jaamu yàlla te jéggañ suñu rëcc-rëcc di siyaare ñëpp nag di jël nuyoo bi siyaar bi rek di ko teg ci loxool kilifa gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jot lu ñu ko mboole mbokk yi nga xam ne yii ñoom lañ bokkoon liggéey bu sell bi di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko ci suñu suñu kanam lu bare bare bare ba lu mu bëgg liggéeyal maamam ci toolu lislaam bi mën ko ko liggéeyal te nu ànd koog moom bi jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon xam naa tey ñuy jéem ñëwaat ci liggéey bi rek muy fatwa bi di tontu laaj yi am laaj yi fi jotoroot yenn yi mi ngi jóge ci soxna bu juuf ñoo ngi koy siyaar bu baax di ko ndokkeel di ko ziyaare ci postéefam ak bëggam lu baax ak yittewoo liggéey bu sell bi ak ni mu koy bàyyi xel euh, kon soxna si dafa doon laaj rek ne moom day def su jullee rek bu sëlmëree rek daal di tàllal ay tànkam muy laaj nag ba xam loolu moom euh, warees na ko def wala déet waaw tàll tànk moom euh, dara newu ca ndax euh, ab toogaay la rek maanaam dem julli na ba pare xañ na tànkee day metti wala feebar la wala lu mën a doon rek waaye moom boo ne boo xasee sëlmal moom moom julli gi moom jeex na yooyu ñu la mayen nga ko def yëpp léegi day daal di mën a dellusiwaat nga di ko mën a def nit ki day toog di taalali tànkam da koy bànk kon loolu daal dara newu ci dara newu ci du yàq ci julli gi dara jotit ak julli gi dara xam na nag taalali tànk fi ñu koy xaw a sibe daal mooy dañ koy sib ci nga jublu penku taalal say tànk daal am na koy moytuloo bu fekkee ni mën nga ko moytu boo toogee jublu penku taalal say tànk bu jublu penku loolu moom am na ñu ko sib wala lu mel ni nga nekk kap kaamil euh, ci béréb taalal say tànk jëmane ko ci kaamil boobee loolu itam dañu koy sipp waaye taw sax mu aay wala ñu mu doon loo xam ne lii euh, dafa araam waaye dañ koo sip rek ngir ormal euh, xebla gi ak ormal téere bu mag boobu di alxuraanul karim waaw kon daal noonu la rek taalal googu daal yàqut ci julli gi dara incha allah beneen laajam bi mu ngi ci laaj xaalisu bourse familiale defe naa loolu lañ koy waxee yaakaar naa mooy xaalis bi nga xam ne bi gouvernement bi daa am ñu mu koy jox ci Sénégal maanaam ñi nga xam ne ñi dañoo néew doole di leen ko dimbale muy laaj ndax xaalis boobu moom ku ko am kuñ ko jox mën nga caa dindi dem di ko saraxa ci jumaaye wala déet waaw loolu lu mën a nekk la xaalis boobu jéem gouvernement moo koy dimbalee nit ñi nga xam ne dañoo néew doole Euh, comme ni nga koy mën a jëfandikoo euh, loolu itam kazalika boo ci bëggee saraxe mën nga cee saraxe moo xam da koy jox nit wala nga yóbbu ca jumaa ji wala kooku mën a sarax rek loolu tamit euh, lu ban lu mën a nekk la ndax gouvernement jëm moor jiite réew jël xaalis di ko dimbali ña nga xam ne ñoo ñoo dëkk ci réew ma xaalis boobee bu boobaa dañ koy mën a jëfandikoo te boobaa it comme sarax boobu muy waxee dinañ ko mën a jël ñu dem saraxe ko a saraxe waaw boobu euh, laajam bi ci toppatit muy ci wàllu julli ne ay waxtu julli da ko rawan ngir ne daan leen ca tool ya balu mat euh, ñetti waxtu julli la raw ko waaye bi mu ko rawee nag muy ñëw di ko fay fey ñaari julli yi fàtte genn gi ci des maanaam fàtte ñetteelu julli gi mu waroon a fay muy laaj ci julli googu nan la koy fayee waaw xam naa bala ñu koy wax nu muy fayee dañu ne julli moom ab liggéey moom warut a tax nit ki di ko tardé bañ koo julli maanaam nit ki loo loo mën di liggéey rek ak liggéey boo mën a nekk rek li la sa charia di wax mooy su waxtu julli jotee rek bàyyi liggéey booba te dem julli ji ba julli ko sotti euh, ñàkk julli ci waxtu daal fiñ koy maye nit ki feeg mi nga ànd akam xelam mooy euh, nga nekk ci ay nelaw yëgoo ne waxtu wi jot na ba waxtu wi jàll wala nga fàtte ko fàtte gu wér goo xam ne gi waxtu wi dem na ba jàll te sama xel newu ca yooyu daal lañ lay may ci ngàntal euh, nga mën a tarde waxtu bi xam ne bu dee ni nelaw la boo yeewoo waxtu woo yeewoo daal di koy fay waaye bu dee da nga ko fàtte itam saa ko fàttale koo euh, nga daal di koy fay waaye jëmmi nag dama nekk ci liggéey wala damay def leneen loo xam ne lii daal ba ngay ba waxtu wa julli moom yëg nga ne waxtu wa jot na euh, julli moom duñ la ci may dara dara dara du tax nga bàyyi ko euh, coono tax nga bàyyi ko di ci doxee sago daal moom julli moom du du ko daal julli moom saa jotee rek ak lu ñu mën a def rek nañ ko bàyyi rek dem julli ji ba ñëw su ko defee loolu mu wax ne dafa fàtte ñetti waxtu fay ñaari fàtte benn ba mu ne benn boobu nu mu koy feye moom jëm julli fay la saa ko fàttalee ko rek da koy fay jëm fàtte la xam nga fàtte moom euh, atte ba mooy moom bu dellu si waate ci sam xel rek euh, jëm julli gu ñuy fay la euh, nga daal di koy fay da koy fay rek jëm fay na fayal na ñaar yee yu jëkk ya benn bi mu fàtte ko ba mu xaw a yàgg mu doog koy fàttaliku léegi da koy fay rek da koy fay daal di ca yeneen waxtu ya yeneen laaj yi ci topp sëriñ Oustaz Aliou Badara Ndiaye moo ko fi indi ñoo ngi koy siyaan bu baax sëñ Badara namm nañ ko sëñ Badara dafay laaj dafa wax ne dafa am imam joo ne jii dafa waroon a ay julli waaye julli yooyu da ko fàtte ba julli gi teew mu dugg ci jiite ay nit ci biir julli gi mu daal di fàttaliku ne moom war naa fay dëgg julli julli gi daal di dagg julli ga eh, ñu wutaat beneen imaam mu tàmbaliwaat ak ñoom julli gi teew jiite leen ko ñu julli léegi muy laaj nag julli googu moom lan mooy ataba la fa demee dañ ko naan zahabal malikiyatu ila annahu yaqta man tazakkara yasiral fawaid fi xaadiratin yaqta wa yastawi fi zalika al wal munfarid walaw istamara fa salaatu saxiixatu wa yaidu nadban wal ma'mumuuna laa yu'iduuna xam naa dafa def ñaari laaj yoo xam ne rek daanaka benn la waaye dafa xaw a wuute tuuti rek ndax bii ci imam ji wala wax nii mu ko nii ko imam ji defee maanaam day aju leeral kon imam boobu noonu mu wax maanaam ne dafa dagg julli ga e, foofu du ñu dagge noonu ak julli maanaam ne ne booy julli jiite wala nga nekk yow dong di julli fàttaliku ne yow kon am na julli yow waroon a fay doog a julli julli gi teew ne ne da koy dagg waaye nan la ñuy def mooy dagg julli ga nag boo amee benn rakkaa da nga cay dolli beneen rakkaa daal di toog taayi sëlmal mu doon ak naafila mooy mo loolu mooy dagg gi bu fekkee ni julli timis la nga am ca ñaari rakaa dangay ngay mottuli timis jamaan julli ko ñetti rakaa waaye bu dee ni julli ñeenti rakaa la nga am ca ñetti rakaa itam dangay ngay mottuli ñeenti rakaa ya doog a sëlmal léegi nag soo paree daal di koy daal di baamu julli gi yow mi jiite noonu ngay def noonu nga noonu la ñu daggeeg julli gu ñu farle ku ne wara nañ ca fay ay julli dog koo julli imaam bi nii lay def noonu lay dagge julli gi su ko daggee nag eh, ba pare léegi day daal di julli moom day fay julli yooyu ko mu war a julli eh, da koy fay ba pare daal di baamuwaat julli ko nga xam ne gii moom la duggan te dagg ko da koy baamuwaat waaye ne ñamu jiite woon moom ne ne eh, bañ nañ may nañ leen maanaam ñu bañ a dagg seen ak julli ñoom waaye tamit bu ñu continuer yi tamit may nañ leen suñ jullee ba pare maanaam dañoo war a baamuwaat julli googu maanaam dañoo sopp nañu maanaam ñu baamuwaat ko xam naa lim ci tegaat rek ne ndax ki war a fay julli julli gi teew ba noppi ñàkk fay googu day tax julli googu yàqu la déet daanaka maanaam mooy lee rek comme la ca maliki ya wax rek du ko yàq du ko yàq ndax fee xam nga dala ne na dagg bu ko fàttale ko ca noonee mu ko war a dagge waaye dañuy sopp nag mu baamu waaye dañ la wax ne la bu continuer itam julli ga day wér kon julli gi day wér waaye dañ la ne nag day boo continuer nag dañuy sopp maanaam bu paree julli gi teew ba fay gee maanaam nag mu baawwaa julli gi mu julli woon waaye nag du ko yàq lu du caagéene maanaam dangaa war a fay julli gi feyoo ko julli julli gi teew kon mu yàq julli googu waaye dañ la boo continuer ba julli julli gi ba noppi euh, farle ko ne nag ah man ko da war a namaa fay léegi da ngay fay julli ga te dañuy sopp maanaam julli googu julli woon nga baamuwaat ko waaw loolu la daal maanaam daanaka benn la rek sorewul dara li mu xaw a wuuteeg imaam jàdd tuuti la muy bu dee imaam la day dagg euh, baamu ginnaaw ba jullee ba pare bu fekkee di dafa continuer waaye bu continuer ba pare buy baamu maanaam ñamu jiite woon ñamu jiite woon ñoom duñu baamu ndax ànd nañoo moom julli ga ba mat waaw dafa xaw a ruqe tuuti nag xam naa day aju tekkamtal tekkamtal ko bu baax a baax beneen laajam bi ci toppaat mooy xukmu miraasil maali xabla wafaati saaxibil maal suñ bëtër dafay laaj ba tey ne ndax nit ki jamono ji muy dund mën nañoo miraas alalam jooju nga xam ne ji moom la am dañ ko naan fa taqsimu tarikati lil warasati qabla wafaati saaxibi tarikati fa in kaana ala sabilil hibati fala wa in kaana ala sabili al irthi li anna al laa yurathu fal miraathu innama yastaxiquhu al warasatu baada mawti saaxibil maali dégg nga sëñ bada nit ki di dund ñu koy miraas comme ni charia tëral nañ ni miraase yow loolu moom charia dañ koy tere nit ki li mu am ci alal te deegut faatoogut ñu ne dañ koy miiraas bu dee ni charia tërale noonu lañuy ñuy miiraase loolu buñ ko def ne nit ki lim fi bàyyi li mu yor ci alal masalan te faatoogut su fekkee ni da ko bëgg séddale ay doomam loola moom may nañ ko ko waaye tamit séddale boobu sax dañ ko wutal dañ ko ay charte yoo xam ne la koy teg nga xam ne da koy teg ci ak maanute gu wér-wér goo xam ne gii eh, jàngale ko defe xëy yaatal nañ ko bu dee da leen koy may ci dundam la mu am ci alal mu may leen ko mu am ay doom yu góor ak yu jigéen loolu moom sañ na ko waaye da koy teg ci ko ak maam gi ak ay charte yañ ca def waa bu dee ni noonu la moom bu dee ni dañ ko da koy maye moom may nañ ko ko waaye nag bu fekkee ni dañ naan dañu koy miraas ne ne loolu du wér maanaam def ndaxte ne li àndal xaya laa miraas ne miraas ba tey ñi koy yooyu itam mooy ñi nga xam ne ñi ñoo moo ñoo yooyoo miraas ma bala ñu koy mën a am euh, nit ki am alal ji day faatu ba pare ñi ko wara a ñu dog ko mën a miraas ku ne jël sa ab cër waaye nit ki di dund ñu ne dañ koy miraas euh, déedéet loolu moom dañ koy bañ ndax dañu dañu ne bokk na ci sarti eh, miraas ki nga xam ne kii moom lañuy ñuy miraas mu wér cëng ne faatu na mu wér ne faatu na waaye tamit mu wér cëng ne ñii koy dondukat ñoom i tamit ñu ngi dund nekk di dund loolu dafa bokk ci charte miraas kon boo ci génnee charte boobu kon miraas mi du dox kon du doon miraas kon daal nit ki moom mën naa maye alalam ci jamono ji muy dund bu feebarut bu tolluwut ci feebar itam ba tey bu dee maye la bu ko dara dalut mu ànd am xelam feebarut am xelam demut mu ne sama alal yi dama koy may sama doom yii waaye ci teg ko ci maandu booba may nañ ko jëmmi nag moom loolu moom charia nangu ko waaw kon daal xam naa yàlla yàlla defal tawfeex jaay seen beneen laaj bi ci topp sëriñ Pape Babacar Gningue moo ko fi yónnee Espagne ñoo koy nii di ko siyaar bu baax a baax di siyaare mbokk yi ne biti réew yépp di leen ñaanal yàlla dool leen di defal tawfeex bi jaay sayyidul wujuud sallallahu alayhi wa sallam Pape Gningue ñaxap moom it na mën nañ ko gëñ nañ koo dégg lool waaye xam naa yittee jamono ji rek kon moom suñ Pape day laaj ndax ab yéefar war nañ koo sarax war nañ koo jox ab sarax maanaam ku gëmuti yàlla waaw maanaam dañ la ne de bu fekkee ne yow da ngaa rek di saraxe euh, mën ngaa sarax ku gëmut yàlla waaye tamit dañ caa tegi charte mooy dangay am ci lu leer nañ ñu ne maanaam moom du ca def lu neexut yàlla maam du ko mooy yàlla loolee nga koy sarax may nañ la nga sarax ko yéefar bi waaye tam na na ko gëstu leer ko ba ko ba mu leer la ne ah, du ca def lu neexut yàlla waaye boo bu ca dee def lu neexut yàlla moom duñ la ko may bu dee ni sarax boo coobarewu lay wax waaye bu dee sarax boo xam ne bi saree da ko tëral lu mel ni asaka moom dee su ko jox su ko jox bi sarax bu sa bi bi saree lu mel ni asaka ak yu mel noonu nga xam ne sariya ko sant yooyu moom dee su ko joxab yéefar daa am ñu ko moom ay jullit koy moom kon daal dafay mel ni saraxab yéefar daal xañ na ku ko mën a moytu sax mooy gën ndax jéem loolu nga ko jox dina jafe loolu nga xam nu mu koy def te jéem bi yéefar la mën na caa def lu neexut ma maanaam def ca lu araam te bu boobaa dañ la koy tere kon dafay mel ni yéen ñi ne biti réew daal xam na ku ko man boo dee di am eh, pas-pas ab saraxe la ngay sarax nga génne teg ko denc ko boo gisee jullit boo xam ne bii yayoo na sarax nga jox ko ko soo ko gisul foofu nga ne ci réew mi nga mën nga koy dajale saabu bu sama xëy na ci sarax nga génne la ngay saraxe teg ko ne su ma dara nga yónnee ko mbokkam jullit fii ci Sénégal moo xam ne nii xam nga ne mu soxla na sarax mënees na ko dimbale waaye di ko sarax yéefare daal xam naa jëm sarti na nga ko leerlu ba mu leer ne du ko def ci fu araam da am day xaw a jafe kon bañ koo def daal mooy gën daal waaw yal na yàlla doole defal taw di jëy Seydina Muhammad sallallahu wa sallam daa